nga baat ci réew mi mooy li xew ci daara yu kaw yi université yi ñu tëj jamono ji ndongo yi di obligé jàng à distance ñu bëri jàpp ne xëy na euh, jaaduwul am jàpp ne aussi après ce qui s'est passé à l'université euh, jaadu na te ñu egg foofu ak ñoom ban gis-gis nga ci bon li ma xalaat mooy que ne ni ko ni ko boroom xam bi waxee rek mhm. boo yàq dëkk tëjal école ya donc lu mu jafe-jafe jafe-jafe lu mun munti xew université tëj bi du solution Mhm. tëj bi du solution parce que de toute façon mënul régler problème yi problème lay régler aujourd'hui dañu bañ étudiants yi daje université pour di defaat ay manifestation no loolu mënul régler problème bi tëj université lu dangereux la te jàng à distance buñ fàtte ne dañ nekk di ko expérimenté mhm. ci covid bi lañ ko commencé miinaguñ ko tàmmaguñ ko te élèves étudiants yëpp amuñu Euh, outils yi jumtukaay yi ci war pour mun ko def te xam nga ne Sénégal couverture euh, internet bi yeggul fépp mhm. donc il faut ñu def attention bu ñu jël des yenn décision yi di mun a def séparation entre politique ak li nga xam ne mooy jëmalee réew mi kanam. ah boo nee séparé politique ak réew mi kanam euh, dafa mel ne da ngay rejeté donc la thèse bi ñu fournir mooy que ne pare wu ñu tey ji pour recevoir leen ndax l' étendue des dégâts yi fi amoon faire weer yële ci ginnaaw. mais étendue est-ce que amphithéâtre yi dañu impacté. est-ce que fu étudiants yi toog jàng amul loolu yëpp je pense que ne c'est pas certifié bu fekkee ne de de université dafa nekk situation boo xam ne kenn mënatul fa jàng mun nañ ko mun nañ ko expliquer nit ñi mm-hmm. mun nañ ko ubbil presse bi par exemple ñu dem fa filmer xool situation bi réellement mais en tout cas li ñu déggoon ne moo fa amoon euh, garaawul garaaw boo xam ne mun na expliquer ñu tëj université et puis de toute façon mm-hmm. tëj université munul nekk benn solution te warul a am dañ war a xool naka la ñuy def pour que université bi ubbi c'est une solution trop facile mm-hmm. moi je dis c'est une solution politique en réalité c'est le pouvoir qui ne veut pas qui pense que ndaw yooyu nekk université dañ ko contre donc day tere ñu ñëw Dakar daje fi pour di def ay manifestations. Mm-hmm. mais loolu c'est extrêmement grave parce que impact bi mu nar a am socialement et demain Euh, économiquement sur le Sénégal. Mm-hmm. xamuñ sax nuñ koy nattee. Uh-huh. maa ngi dégg ay nit ñu naan 1988 eh, dañ tëjoon université non tëjuñu woon université 1988. dañu grève ak grève ak grève ba quantum horaire bi motatul. nga xam ne dañu obligé déclarer année blanche. Mm-hmm. mais 1988 tëjuñu woon université. Mm-hmm. donc il faut que ñu def attention c'est la première fois au Sénégal ñuy gis euh, des politiques. qui décide de fermer l'université. Mm Je pense que c'est un précédent très grave te dinañ ko nag